waaw waaw kooku Ndiaye Tine la ndeysaan Ndiaye Tine fii ci Gambul waaw rakk la ci Tapha Tine ndeysaan waaw waaw Ndiaye Latin mo sambu bejen fi ci gambul wa ou ndeysaan tout droit entre de dami job Diop Radiakhé moy dugg ci si noonu addu bi ci la nek nekk moom Radiakhé waaw ngan gambul ben la Gamboul Kër Fodé ben la mom moom Radiakhé à domicile la nekk waaw waaw moom ta débat déb ya Omar ñi samp na béjjén ndeysaan waaw waaw John Saya Bargny samp na borom quatre sorties yu mujj yëpp quatre la ndeysaan moom John Saya bu Bargny samp na béjjén fii ci Gamboul fekk ci biir Ndiaye Tine fekk ci biir Lamine Diop Radiakhé fekk ci biir Sayer Ndama ndeysaan ak yeneen champion ndeysaan ñeenti xibla yi waaw mbër yaa ngi noonu Sika Mbaye yaa ngi noonu diggante Malick Sarr Weyal moo ñu wan ginnaaw a noir Boul Khouse moom lañ jàkkaar lool waaw Boul Khouse Malick Sarr nga sa suuf Boul Malick sar bul xuus bul xuus moo yor an moo yor weex li mboot mboot bañ forcé na ko jeex na jeex na waaw waaw Malick Sarr Yal Sané en finale Malick Sarr daan bul xuus bu ngaan ndeysaan Malick Sarr Yal Sané daan na bul xuus bu ngaan Malick Sarr en finale poids léger fii ci Gamboul combat boobu ndeysaan mënut a yomb demi final la dañoo tolloo doole tolloo taxawaay ñoom ñaar waaw waaw doomu Jordan Silvande Thank you. Jules Baldé am na loxo ci ngemb waaw waaw Ngor Sarr loxo ba jàpp di fan la waane di ma jëg gëtëm ndeysaan demi final la mun na ndeysaan daan na Jules Baldé Junior jëlu ba rëy na ndeysaan oh jëlu ba na doomu Jordan daan na Jules Baldé kon final poids léger dañu am diggante Malick Sarr Petit Royal waaw ak doomu Jordan tout droit mbër bëgg nañ di naka waari lépp jaam Uyal waaw Uyal en final poids léger fii ci Gamboul Malick lu mu ak lu wax rek di ñaan yàlla rek ci kaw ci ma dajeeg waa li ngay bëreel xam nga ko dede xaw ma doomu Jordan ah doomu Jordan gis nga ko fi def gis ko wax ak indil ah mbor la rek mbor la mhm. waaw day bëre ba rek damay bëre ba yegg si ñaan yàlla may ma ci kawam rek waaw loolu ñaan lan lay wax Uyal ak supporter yi aw ma fay bilaay aw ma fay dañoo bàyyi seen ma Uyal moom dama den bàyyi ak yàlla rek billahi azim tere gid ma den sant a den rek billahi to leya den o ɓiy nuun refum nuun fop ndam tam rek i kaga rek xeɗa den de bonne chance jaajëf ok merci beaucoup am nga jàmm waaw sant kay doomu joran en final waaw doomu joran lu mu yëg ak lu muy wax waaw nuyu ñëpp mhm. di sant ñëpp mhm. parce que ñii dañoo sonn ci man waa Gandiaye dañoo sonn ci surtout pas Moussa Faye mais dafa sonn ci man am ak Ippal ak Cegin Marlo dañoo sonn ci man doomu joran xam nga ki ngay bëreel final non boobi xaw ma woon. boobi ndaanaan la de champion la ah, loo wax ak wax loo indil. non lu mu indil moom moom moom kese moo ko xam moom waaw moom kese moo ko xam waaw moo xam loolu waaw. moom kese moo man maa ko xam li ah, man maa ko xam voilà. noonu la demee affaire moom nuyu gars yi nekk Mbour yëpp waa ñoom Karim ñoom ñëpp boo yëpp maa leen di bëgg ak sama gars yi nekk Gandiaye yëpp maa leen di saar ñoom ñëpp. am ñoo far waaw mu ragal waaw jaajëf 2022 waaw waaw diggante Malick Sarr Malick Sarr Ouyal doomu Jordan Mbour Malick Sarr moo ñu woon ginnaaw waaw waaw Malick Sarr moo fi daan Bulxuus Bougane ci demi-finale yi doomu Jordan daan Sine Baldé waaw waaw final poids léger baa ngi noonu fii ci Kamboul di bëgg waa Kamboul di leen ziar Abou Diagne waaw waaw suñu grand frère la waaw waaw final baa ngi doon poids léger diggante Malick Sarr bu Yàlla Sandé doomu Jordan Mbour arbitre doomu Jordan Malick Sarr ndeysaan ñoo ngi sa suuf doomu Jordan daan na ko waaw doomu Jordan jël na lamb doomu Jordan jël na poids léger bi fii ci Gamboul waaw waaw nee na moo jël poids léger Xalamba semaine jëlaat poids yi Gamboul doomu Jordan daan na Malick Sarr Ouyal final poids léger Gamboul waaw aca premier combat de la soirée Jordan wala Thiaka Faye daara ji Thiaka Faye à daara ji à fay amaare na ko booy bi daw génn caaka eh, eh. fay amaa fa na ko waaye Patodo da koo rikam Ndiol da kaa bëgg a profito mais booy ba nga koy imposé dugg ci biiram luy xew da koy bët wala eh luy xew Ndiol attention Bato takk na Ndiol Géant eh luy xew da nga sew solo bët ay bii combat Ndiol Géant Bato doo. combat bi neex na

bi Ndiol Daga bu Gamboot Mafia ambiance eh Radiakhé Modou Diam Terry Radiakhé rof na ko naax imposé waaw waaw loolu forum la Radiakhé forcé na ko da ka bugg a wetu waaye Modou Diam Terry nanguwul de Radiakhé songale na ko da kay daan Radiakhé daan na Modou Diam Terry eh nee na daan na ko trois fois nee na daan na ko deux fois Brosse waaw Ndiol Géant bu Bargny bateau de mooy quatrième combat après boy Casamance waa aca Ablaye Diouf Sayer Ndama Ngor Faye wala Bouki Belay be waaw waaw Sayer Ndama à droite Bouki à gauche derbi Belay be ak Jokul waaw waaw Sayer Ndama Bukit waaw waaw Sayer Ndama jël na ko wër na ko ndombo da koy daan wala daan na Bukit Belay be arbitre bi sufle na combat bi Saya se reg-reg Rek rek de bu Aja nyari ko bay ñu dawa do do ci digi gew bi Jata fay ak jaytin agos Se abu rek rek de Nyari ko bay dawado. dawa do Hey hey jata jël Ndiaye Tine daan na ko Ndiaye Tine daan na Diatta dafa diis mbaa mën nga koo sogole eh, combat bi combat derby la diggante Koukoum ak Kër Fodé Thiaka Faye moom lañ jàkkaarloo Radiakhé moo ñëwoon ginnaaw Ndiaye Tine Bawol Sayer Ndama Ndiaye Tine waaw waaw deuxième demi-finale Ndiol Géant Bargny Radiakhé bu Kër Fodé waaw waaw combat bi ci digg géew bi Sayer à droite Ndiaye Tine à gauche Sayer daw na faxat jël na Ndiol Géant eh combat bi amul une minute ay seconde la ko daan ay seconde la ko daan. Franc final Lamine bëgg naa la ziar la. dégg naa la dégg naa la bëgg. naka waar. waaye naaj nii kay. par rapport temps yi li ñuy daje bëri na ngay sant final. waaw gis nga de. bi dara macha allah yàlla yokk. yàlla yàlla yokk tax. bëgg naa la. bëgg naa la Lamine Diop à domicile. rajaxe Kër Fodé Gambul nga ñëw di def final poids lourd loo yëg ak looy wax la. waaw jërëjëf di si kontaan ndax tey sama dëkk laa nekk. dëgg la su ma ñëwee bu final dama siy kontaan bilaay fii gàmmul sama sama dëkk la moo kër foo da yëpp benn am final sayer ndaama loo koy wax sayer waaw sayer sama grand la di ñaan yàlla mu may ma ndam ci kawam rek bilaahi waaw moom am waaye di bëggee supporter yëpp kër foo de gàmbul ngooj ah dund bi yëpp daal bil gàmbul pël gàmbul mataar gàmbul yëpp daal gànjaay yëpp maa ngi bëggee ñëpp jub jaajëf sayer ndaama noonu la première finale ci waaw gis nga noonu yoon bi métti woon na guddoon na waaw métti woon na mais agsi nga waaye lamb la quoi aca nga am e final Lamine Diop Radiakhé loo koy wax di ñaan yàlla yàlla may ma nam rek waaw loolu rek lay ñaan yàlla quoi dëgg la fii moom kenn mënul yàlla rek moo fi nekk say ndam à domicile presque gambul jógul benn waaw fi sama dëgg la fii moom am naa fi ay supporters yu bëri sax ñaan yàlla rek yàlla may ma ndam quoi incha allah ngay wax supporters yi fan si ñu lay bëggee waaw di di di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa jógul yëpp di sant mbule ak aas bi nga xam ne dañ xam nga dañuy sonn si man quoi fu ne ñu ànd ak man xam nga mooy loolu noonu xam maa ngi sant maa ngi sant bu baax Général TV nag sa kaw sa kanam quoi. ndeysaan incha allah bonne chance arbitre souffle na combat bi final Radiakhé Kër Fodé Sayer Ndama Diokul ñoom ñaar ñëpp à la ñu ne ñoom ñaar ñëpp doomu Gandiaye la ñu Sayer Ndama à droite Radiakhé tey le 27 décembre 2022 fii cey bi final waaw waaw Sayer daw na jël ko Sayer Dama rajaxe Rañaxe moom lañ jàkkaarloo Sayer Dama moo ñu woon ginnaaw Sayer Dama Rañaxe fii nii ci Kabul dëkk mu rax wala Abu Jaañ la grand champion